Eh, buñ demee ci nettalib Anas ibnu Malik day wax ne yonante bi sallallahu wa sallam noonu nañu dee leen ndax xadd lu am barke la qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka xadis bi nag dafa am solo lool ndax dafay sunna di ndigalul yonent bi ndax ñett yi nga xam ne nii mooy taxa doon sunna maanaam sunna benn ci ñett yi moo koy def sunna xadis bi dajalee na ñett yépp sunna yonent bi sallallahu alayhi da koy wax doonte jëfu ko wala mu jëf ko doon te waxu ko wala mu saxal ko maanaam ñu def ko ci kanamam mu noppi ca ndax bu fekkoon ne lu aay la sañu caa noppi da koy daal di corriger fi saasi xadis bi nag boole na xawliya ak fi'liya ak taqririya ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko digle ko te def na ko ba tàyyi saxaaba yi tamit ridwanullahi alayhim ajmain def nañ ko ba tàyyi ci kanamam mu saxal ko eh, xadd nag dafa am njariñ lool ndax yonent bi sallallahu lépp lu mu wax rek sunu borom da cay def barke boroom xam-xam yi niñ jàngatee xadis nee nañ ki xadd ak ki xaddul maanaam bu ñu xëyoon di liggéey wala ñu xëy di daw walla ñuy bokk dara ab liggéey ki xaddul mooy njëkk jeexal maanaam ki xadd yàlla da cay def eh, day def ci moom barke def ci moom ak dëgër ak cawarte donte lam xaddee lu néew la ak lu mu tuuti tuuti ndax xadd bi lu bari li amu ci solo waaye lu barkeel barke gi barke bi moo ci am solo beneen ba ca desit dana la permettre maanaam nga julli suba ci waxtoom ndax diggante fi ngay xaddee ak fii ñu jullee suba nelawaat xaju fi am na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla bëggi nelaw ak taayal sama classe gi tax na dañuy préférer sax guddee reer bañ a xadd wala ñenn ñi boo leen yeeyee dana la ah man du ma xadd man de bu ma xasee reer pare naa ci te dañoo yaakaar ne xadd maanaam looy lekk la nii ngir bañ a xiif rek ci bis bi deere demeewut noonu dafa am barke te am ay mbóot ak i sekkare yu ci nekk ndax buñ demee ci beneen xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne ñun jullit ñi de li wuutale suñu koor ak kooru ahlu mooy xadd waaw ahlu kitaab mooy chrétien ak juif moo tax mu ne faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahli kitaabi aklatu sahar di lu waxaat ci beneen xadis lu am solo loo xam lu jaroon na di jóg di xadd mu ne inna allaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluuna ala almutasaxirin yàlla ak malaayka yi dañuy ñaanal xaddkat yi maanaam jamono bi nga jógee di xadd ci li muy sedd set ak li ngay gëmmentu gëmmentu ba baa ngay noppi suñu borom tabaraka wa taala ak malaayka yi ñu ngi lay ñaanal defe naa aji maye ji nag ku muy ñaanal danga gaaw a am te da nga bari la kon nañ fonk xadd bu baax fonkloo ko gone yi ñu jàngal koor fonkloo ko jigéen ñi ku daan nelaw tamit bu xadd jotee yonent bi sallallahu wax na ci beneen xadis ne dee leen xadd donte kaasu ndox ngeen di naan sax bu leen ko xeeb ndax barke bi ci nekk kon ku fonk bu baax te it ci koor gi la nag bu baax a baax te sunna si yonent bi la te ndigalam la yàlla na ci sunu borom jàppale te barke bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu defal ñu ko ñun ñëpp ndax barke kat mag ñi daanañ wax ne du jëmm waaye jëmm jum nekk ñu xam ne ma nga ca te it Sëriñ daana wax ne barke kat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 in uridu illa al islaaha ma stataxtama tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh